may ñu ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm te lépp lu ñu ci jaamu yàlla nangul ñu ko di remercier la conférence des leaders ci seen taxawaay bi ñu am ci xeex pour que Sénégal li fi nekk ci ñaawteef mu jug fi looloo tax coalition bi tudd Yewwi Askan Wi duma guddal dama mës a dégg le président Moussa ci conférence de presse bi passé mu ne Macky Sall léegi Sénégal dañu nekk dans une dictature assumée ça veut dire que Macky Sall nëbbatootul ci li mu bëgg a def dafa bëgg des ci réew mi def boppam buur di buum di bummi ma teg ci ne face à une dictature assumée il faut des réactions assumées maanaam mooy lan comme moom loolu la bëgg ci réew mi te ñun duñu ko nangu il faut que ñu assumer jàkkaarloog Macky une bonne fois pour tout mu xam ni réew mi moomu ko donn ko dafa juddu fekk ko fi te day dem incha allah bàyyi ko fi. le président Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Dièye dafa ni Macky Sall 2024 du fi nekk président de la république loolu sax pour man may ko la dañu ne dafi dul nekk candidat parce que pour nekk président la république il faut que nga nekk candidat réew mi toll na foo xam ni liñ naan ku artuwul di nga àtte ma wax ko encore ku artuwul di nga àtte egg na foo xam ne ñun ñii toog ci taabal bi mu ay leader ak ñi nga xam dañ fi yabal ñu toog fi jaral na leen seen bakkan comme ni ko président Cheikh waxee tout jaral na leen kaso yaakaar naa ni loolu moom moo ci gën a tuuti sax jaral na leen lu romb njortu Macky Sall dafa dem ci benn journal bu nekk bitim réew ne Sénégal c'est un exemple de démocratie may laaj sénégalais yi ndax réew moo xam ne exemple de démocratie la est-ce que xel ak xalaat nangu na ku bëgg a nekk candidat koo xalaat ne tey jii nii rek mën na laa mën na laa xañ sa nguur rek nga ni naa ko faagaagal mu bañ a nekk candidat dal na fi le président Karim Wade dal na fi le président Khalifa Khalifa Sall may laaj sénégalais yi ne réew moo xam ne nee nañu exemple de démocratie la est-ce que xel nangu na ñuy jàpp ay xale yu tuuti yoo xam ni dañ doon manifester librement tel que constitution jox na leen ko ñu leen di yóbbu ci ay instruction est-ce que loolu xel ak xalaat nangu na ko réew moo xam ni nee nañu démocratie moo fi nekk est nangu nañu di xalaat ñu jël ab médecin koo xam ne faj mooy métier ñu jël ko téye ko nar ko yóbbu kaso parce que tout simplement clinique ba nga xam ne moom la moom dafa am ab opposant politique bu tudd le président Ousmane Sonko foofu la doon fajoo est-ce que loolu xel ak xalaat nangu na ko réew moo xam ne nee nañu démocratie am na fa est-ce que xel ak xalaat dina nangu ne mu am ñoo xam ne dañoo ànd ak Macky di sàcc alalu réew mi di saaga di menacer d'assassinat ñooñu ñuy dox librement te keneen ku wax lu yées la ñooñu wax ñu dugal leen kaso est-ce que loolu réew moo réew mu am démocratie la mënoon fi toog. di ko lim réew moo xam ne démocratie la ñu jël ay député la président Déthié Fall a ngi nii jël ko dugal ko kaso atte ko alors qu'il avait son immunité parlementaire loolu est-ce que réew mu am démocratie la suñu fi lim li xew ci Sénégal yëpp ñu fi jug moo tax ñu ne coow li jeex na wax bi jeex na li ci des mooy action moo tax la conférence de leaders décidé sur tout le territoire national déposer ay lettres d'information pour marche pacifiquement parce que loolu constitution bi moo ñu ko may pour won Macky la ne ko la mu doon xeex moom guddi ak bëccëg di ko wax ñu di ko var chaque jour tey lañ ko gën a mën a xeex te moom sax ba mu ko doon xeex ci làmmiñ la ya la yemoon ndax fit ba amu ko woon mais ñun dañ ci boole di ko wax ak di ko jëmmal damay wax sénégalais yi ne président Cheikh wax na ko léegi Macky Sall li mu gën a ragal loolu la yaakaar ne moom la sénégalais yi ragal moo tax muy créer xalaat ne mën na créer la peur chez les sénégalais mooy jàpp ay nit yóbbu leen kaso parce que moom loolu la gën a ragal gisoon nañ ko ba mu fi demee Touba ki Serigne Baara yàlla na yàlla yokk léeram sukku di jooy xalaat ne président Abdoulaye Wade da koy tëj ñoom doyen Habib si dund nañu loolu police ga mu ragal nga xam ni saa yu grenade lacrymogène tàkkaan mu daw mu yaakaar ni loolu la sénégalais yi ragal ñu koy wax ne ko mënul fexe fexe fexe ba teg ragal ci suñu kaw ba duñu jàkkaarloog moom wax naa ko keroog bi ma demee tribunal garde pénitentiaire ñu ne ñu ñu jàpp xale yi ñu fees fa del am ku may tooñ naan waa du ngeen arrêté ñii amuñu fuñ leen def ma ne ko préparez-vous à partir du 29 et du 30 à recevoir 2000 autres filles dinañ ñëwaat bu soobee yàlla parce que daa ñu génnaat ci mbedd mi tel que la constitution nous le permet xeex ak Macky Sall mu jógee ci Sénégal ma am benn message bu may wax les forces de défense et de sécurité fetal gi mu yor suñu alal fetal gi ñu yor di ko dóor ci kaw xale yi suñu alal la jar casque yi ñu teg seen bopp pour protéger leen suñu alal la jar matraque yi ñuy jël di ko dóor doomu jàmbur yi et mën na am sax seen doom a ngi ci suñu alal la jar c'est l'argent du contribuable bañ leen koy jox jox ñu leen ko woon pour ñu koy dóor dañ leen ko joxoon pour ñu aar les biens et les personnes dañ leen ko joxoon pour ñu sécuriser les populations chaque jour ngeen dégg Sénégal li fi nekk ci ay agression ak ay rey yu metti du ngeen gis police du ngeen gis gendarmerie mais quand il s'agit d'un opposant buy dox soxlaam wala buy def conférence de presse tu vois toute cette armada là ñu jël ko bëgg ko teg ci seen kaw pour xoqatal leen loolu dafay jeex gis ngeen keroog le 16 la conférence des leaders bëgg def conférence de presse fii ngeen gis ñetti camion gendarmerie daal di bare le siège du du du PRP. loolu mooy lan ci man réew lañ gis loolu loolu nag dafay jeex moo tax ñuy woo sénégal yi ne leen plan d'action bi ñu teg le 29 et le 30. na ñëpp génn ñu marche pour won Macky Sall ne ko jeexal na Sénégal pare na ci waxuñu président de la République candidat sax du ko fi nekk planton sax Macky Sall dootu ko nekk fii ci Sénégal donc na Sénégalais yëpp génn bu kenn ragal kaso jombul kenn moo gën a yées ci li nga xam ne mën na dal suñu kaw mars 2021 mën naa remonter sax avant mars 2021 de 1960 à nos jours ay sénégalais dee nañ fi ay sénégalais xañ nañ leen seen liberté ay sénégal am nañ fi ay sénégalais am nañ fi laago ndax lan pour que démocratie sax ci biim réew donc ñooñu waruñu gën a gore di leen woo ci marche yi nga xam ni dinañ ko organiser sur toute l'étendue du territoire les lettres d'information déposé nañ ko le 29 le 30 et le 3 avril 2024 di saluer tamit cette nouvelle plateforme bi nga xam ne judd na démb mu regroupé plus de 60 organisation et de personnalités politique et citoyennes yoo xam ni def nañu jonction taxaw jàkkaarloog ak Macky Sall incha rab yi fii ak le mois d'août ba mois de juillet Macky Sall dina xam ni réew mi moomu ko te dina fi dina fi jóge ci jàmm maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum. daanaka ñi ma jiitu wax nañu wax ji yëpp. tënk nañu wax ji yëpp